maa ngi ubbee sama wax ci muslu ci seytaane waaye maa ngi ubbee sama waxit ci sant yàlla ala nicmati al iman wal islaam wal ixsaan ci xéewalu lislaam ci xéewalu iman ci xéewalu waaye di julli nag ci yonent bi sallallahu alayhi wax ji may wax nag ci biir néegu yàlla laa toog di ko wax néegu yàlla nag ku ci toog yaakaar naa toog nga ci dëgg wax jii nag may wax nga xam ni e, dëgg ko lal dëgg ko lal ma yëkkati ko nag ci weer wi wu tedd wi ñuy wax rajab tudde ko shahrullahi weeru yàlla weeru yàlla nag loo ciy wax dafa war a nekk dëgg moo tax may ñaan nag ñu profité ci ñetti weer yii rajab shaaban ramadan jël lépp tekk ci dëgg kàddu yi nag maa ngi koy jëmale képp koo xam ni sénégalais nga kàddu yii maa koy jëmale képp koo xam ni kilifa aada nga kàddu yii maa ngi koy jëmale ci képp koo xam ni kilifa diine nga kàddu yi nag mooy sukkandiku ci assaakitu an il xaq shaytaanun axras noppi ci dëgg kooku kooku mooy mooy muuma rek nit ku muuma seytaane bu bu lub loolu mooy nopp ci dëgg waaye tamit ma delluwaat si ci xadis ba yoon ba sallallahu alayhi wa sallam ni eh attention la taamurunna bil maarufi na ngeen digle lu baax aw la tanhawunna anul munkar jéem a tere lu bon aw la yusallitanna alaykum shiraarakum fa yad'u xiyaarakum fala yustajaab bu ñëpp noppee ci dëgg bu yàggee nit yàlla yi sax bu ñu ñaanee yàlla du leen faale kon mbokk yi ci dëgg googu la ñu teg suñu tànk nag bay wax nag suñu droit ci Sénégal man lam yahtam bi umuri muslimina fa laysa minhum koo xam ni mbiri jullit ñi itteelu la sallallahu alayhi nee na bokkuloo day ci man bokkuloo it ci lislaam mbokk yi kàddu yi may wax jëme ko nag ci ñi nga xam ni ñun ñoo leen fal ba noppi ñun ñan lañu fal président Macky Sall lañu fal président Macky Sall fal ki yore ëttu ëttu kon fokk wax ak nag président te président nag ñi war a wax ak yow man ci laa bokk bu fekkoo noonu mën naa toog ak yow du ma ubbi sama wax ñëpp dégg ko yow it nga dégg ko waaye nag fa ma war a jaar jaar naa fa bu dee ci lettre jaar naa fa bu dee ci ay nit ñu la jege Mahmoud Sali jaar naa ci moom conseil religieux sant Cissé dëkk Pire jaar naa ci moom kenn mbay conseil ca ca Louga jaar naa ci moom ku ñu wax Ba benn pël bu dëkk ca Njàmbur jaar naa ci moom ñooñu ñëpp ñu la jege lañu waaye di la wax loo xam ni nag mooy. ñun ñi la jàppale woon ci lañu bokk am na conseil bu la jege laaj ko ko lieu yëpp ci ci Louga daje nañ fa lieu yëpp ci Saint-Louis daje nañ fa pour dooleel la waaye nag actuellement nii président suñu xel dafa teey ci jëf yu bare ba ca jëkk mooy président yow yaa waxoon ni ñaari màndaa ngay def kon ñaari màndaa yi li ci des bareetul li ci des bareetul comme bareetul nag li nga xam ne ñun moom lañ doon moom lañ leen doon conseillé mooy nga woo opposant yëpp ngeen toog benn euh, jataay waxtaan tabarakallahu ndax nag kuy waaj a dem dangay ngay da da ngay waxtaan dangay tàggoo dangay teg ay yoon yoo xam ni boo demee ñu am way te nag luñ la mën a wax kenn du wax ni liggéeyuloo waaw janoon janoon janoon nañu ak liggéey yi waaye nag may ñaan président sa liggéey yëpp nga bañ ko yàq waaw mooy lan nga bañ def troisième mandat ndax boo ko defee rek li nga liggéeyu yëpp day yàqu kon maa ngi lay ñaan nga bañ ko def te ku la bëgg rek yéene la jàmm moo lay wax loolu ñaareel ba président nañu bàyyi nit ñi may leen liberté ñu wax te ñooñ ñu may liberté it ñu wax dégg nga daje bu ñu dajee nañ wax lu rafet wax luy jëme réew mi kanam loolu la ñuy ñaan président ñu ngi ñaan it ñi ñi ne sa wet nga teg benn kuréel boo xam ni ku ci luubal ñooñu génne ko président ñooñu am na lu ñu génne kon ñooñu nañu janoog population bi wax ñu lu leer walla président nga yóbbu leen ci ëttu attekaay bi président loolu lañ lay ñaan euh, ñaareel ba président metti na lool li nga xam ni wax naa ni ñaar mooy indi na léegi ci Sénégal ñaar ñooñu dañ ko war a daw waaw te président avenir avenir bu rëy mi ngi sa mi ngi sa kanam yow doo mag lool ah ñaar ñi nag mooy lenn nga bañ dem troisième manda beneen bi coowal eh, njegemaar boobu nga xam ni boo nekk jàkk rek. nga xam ni te am bëtu xool nga xam ni xool bët yi nga xam ni kii dégg nga seytaane buy wax la benn seytaane buy wax nag boo xam ni yii yëpp a ngi ci moom ay mbokkam ñoo jëkk a seede ni du nit ku jub ay mbokkam ñoo jëkk a seede ni kuy fen la waay waay waay fa mu jaaroon di liggéey ca restaurant ba ñoo ñu wax lu mel noonu fañ ko jëloon muy liggéey ñooñu wax loolu waay waay lu mel nii bu amee lu mel nii bu amee kii kenn war ko déglu sax kenn war ko déglu moo tax may ñaan man xalif généraux yi nekk Sénégal rawatina ñi nga xam ni sama soppee lañu sama mag lañu ndax du man ca seen bàyyale ak sama baay ma commencé ko ci sëñ Muntaqa ma commencé ko ci sëñ Muntaqa sama mag la sama soppe la sama xarit la la jëkk muy nekk xalifa sax boo mosa màggal ba ci suba sax dinaa dem seeti ko ndax sëñ Bachir ni meloon ak sama waajur waaye sëñ Babacar si itam sama mag la waajuram nekkoon soppee sëñ abaas waaye sëriñ Maahi Ñas it sama mag la nit ku woyof ndax Baye Ibrahima Ñas sama soppe baay la woon ak yeneen xalif yëpp nag lenn laa leen di ñaan ñu bokk ci mbir mi dugg ci li ma leen di ñaan nag les xalif généraux yi ak suñu xalifa nag Cheikh Ahmadou Tidiane Sall xalifa Serigne Abbas nañu woo nañu woo docteur bi nañu woo docteur bi njëkk a gis ndaw si nañ ko woo ci néeg wax ak moom mu wax leen maa ngi leen di ñaan nañu woo euh, ki ki déglu woon euh, njegemaar bi di doomu suñu baay Ibrahima Niass nañu ko woo déglu ko xalif bi maa ngi ñaan nañu woo borom salon ba mbokk yi xalif bi ma yi maa ngi ñaan nañu woo njegamaar bi bu ñu paree nag ñu woo président nag ni ko ni ko ni ni ko ko dossier baa ngi ni ko baa ngi man de am na fu ma jot a jaar mais fa ma jaar yëpp li ma ci jànge mooy mbir mii ay complot la wallahi loolu laa fa jànge billahi tallahi am na ku ma waxal ci groupe yooyu ñu ñaar rek ak yàlla mu xamal ma ni ma lii lenn nekku ci dara amu ci way way way damay wax ni ku njaaloo woon ak jigéen ba pare nga ray ko sax warul àgg fi loo xam ne fukki ñu rek ñeenti dee nañ ci ñu nekk rek mu yàq suñu taayam ñu nekk ci di wax nañ wax développement Sénégal nañu wax du ñuy fexe ba réew mi baax du ñuy fexe ñuy fexe ba nit ñi jub lii mooy dëgg mbokk yi te nag lii ku ko wayefal wayefal nga lu rëy ndax it nag yërmande dafa baax président li taxoon ñu yërëm la man de li ma amal relation ak yow mooy bañ la bëggee sonal di la woo dikk ci laa taxaw ni néew ji doole man ak fu mu mën a bokk dama ko jàppale kon nag président Sonko euh, lii ñu ko teg ba ni ko sax doo tukki en tant que maire en tant doo génn réew mi mbokk yi nañu am yërmande te maa ngi ñaan na ñëpp xool li bëtu yërmande waaw muy kilifa muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nañu dellu si waat te bañ def ay parparloo waaw par loo baaxul dëgg bu accès rek dañ ko war ni tuuj ñi dëgg gaa ngi nii dëgg gi nag mooy lan mooy président Macky sàll fonk nañ la suñu kemtalaayu fonk jàppale nañ la ñaari mandat dañu lay ñaan pour réew mi dal dañu lay ñaan pour nga am jàmm dem ci jàmm nga bañ def troisième mandat ëttu attekaay yi ma yaa leen yilif ñu leen di ñaan yéen ngeen arrêté lii bàyyi doomu jàmbur ji jox liberté man dama xam dama xam kuy Ousmane Sonko mosuma ko gis mosuñu wax mosuñu sax toog ci àdduna waaye nag ñun dañoo bokk ci société bi nekk ay imaamu ratib di wax ak mboolooy yi ñuy wax ñuy déglu waaye sama conclusion yëpp ba mu paree teg naa ko ni mbir mi ñuy wax yëpp ay fowukaayu xaleel la mbokk yi foofu laa doon yem ngeen baal ñu ci kàddu yi waaye am mettit rek ak naqar ci Sénégal nii muy doxe da dangay nekk kilifa gis dëgg ni ci pat ci sa tànk ngir ngir intérêt loolu tam dañ ko war a daw dëgg bu xasee jot bu xasee kii suñu maamee loolu la ñu xamoon même dëgg gi lu mu la nar lu mu la war a teg na la ko teg dëgg gi bu lay teg ñàkk na la ko teg dëgg gi bu lay teg ñàkk sa liggéey na la ko teg dëgg gi bu lay teg dugg ci kaso bi na la ko teg moo tax barki démb rek laa demoon ci anniversaire président Mamadou Dia Maodo bi Maodo bi nga xam ni politiciens yépp war nañ ko xool war nañ ko roy te itam wax dëgg yàlla réew mi bàyyi kenn moomu ko maamu kenn moomu ko ki ko war a yor mooy kii population bi bëgg rek ñu voteel ko ñu voteel ko dégg nga mu jël ko loolu mooy dëgg te liggéey yi nag xoola kenn mënu ko jeexal président Macky maa ngi lay maa ngi lay gën a dolli loolu maa ngi lay gën a dolli nii li ngay liggéey yëpp da dégg nga da dem rek bàyyi ko fi keneen àggale ko parce que nit benn nga dee bàyyi fi liggéey walla ngay dund bàyyi ñeneen àggale ko loolu daal moo doon sama kàddu yu nga xam ni dinaa ko wax te incha allah du ma dañ di ko wax fiig may dund wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu